ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أيها الحاضرون والحاضرات نؤيكم تحية طيبة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وكي جلدي mbokki taalibe yi mbokki ñu mokkal lislaam ñu leen di nuyu nuyu diine nuyu lislaam leen ndokkeel ci weer wu tedd wu mag bi wii nekk ñu shahru rajab mubaarak ci bis bu tedd bu mag bii nu di bis bu Cheikh Mouhamadul Fadal al di nuyu suñu way jur wii di suñu wet suñu xarit suñu wallëre Cheikh Mouhamadul Fadal Mbaye ñu gën ko miin ci Baye Fallou Mbaye di nuyu mboolem dawaay yi fi nekk yëpp di leen ñaanal sàkku ci ñaan mu mel ni mawdu bi ñu sàkk woon sax moo waxtaan ci mooy melokaanu mag ña toppoon Cheikh Ahmadou Bamba waaye xam nga lu gën a bari ñun ci suñuy conférence léeg-léeg du ñu topp conférence yi nga xam ni wala boog ñiy sàpp ci ñuy conférence léeg du ñu leen topp ci seen bëgg ndax nit dana bëgg te fekk li bëgg am na lu ko ëpp njariñ ci moom moo tax li gën a bari damay topp rek waax ay ndax arab li dañuy léebu ni li kulli makkaan maqaal jamono bu nekk am na ay actualité yuñ ca war a wax rawatina ci suñu jamono bii ñu tollu moo taxoon ma ni démb ci ngoon daal xaaral ma xool benn mawduu bu ñuy tudde wujubu taa waliyul amr waru topp ndigalal sa kilifa lu am ahamiya waaye rawatina nag waaxi ay yii nga xam ni ci la ñu toll ni ñu sobantale kilifteef ni ñu sobantale topp ndigal borom rabbi si tuba jàlla jalaalahu daa wax ci téeréem bu tedd bu mag ba ni yaa ayyuha alladina amanu atiu llaha wa atiu rasula wa ulul amri minkum fa in tanasaxtum fi sayin fa rudduhu ila allahi wa rasuli in kuntum tuminuna billah wal yawmi al axir dalika xayrun wa a'zamu tawila ma nga sóoratu nisaa suñ borom nga ni yéen ñi nga xam ni gëm ngeen yàlla bu fekkee ni seen ngëm dëgg la topp leen orientation yi leen suñu jox ak orientation yi nga xam ne moom la leen suñu yonantu jox seenu yonantu jox waaye bu ngeen noppee ci loolu na ngeen topp orientation wu seen kilifa yi ñi nga xam ne ñooy seeni kilifa liñ leen di digal ni ngeen koy def liñ leen di tere ni ngeen koy bàyyi wa ulil amri minkum wa ulil amri minkum mi ngi tàmbalee ci biir kër gi li bàyyi di digle njabootu waa kër gi war cee topp wa ulil amri minkum chef de quartier bi wa ulil amri minkum chef de village bi wa ulil amri minkum gouverneur bi wa ulil amri minkum préfet bi wala amru minkum ba ba ngay dem ci président ba ba xalifa général ba ba ngay dem ba ba ngay dem wala amru minkum su borom ni fa in tanasaxtum fi say fa rudduuhu ila allahi wa rasul waxtu jamono lajee lëndëm te tëx ba ak réeroo am masala xew-xew bi delloo si leen ko ci yàlla ak yonantam seet leen lu ci yàllaa ko tam wax ngeen doxale noona mu ne lii de mooy déggin wi gën a rafet weneen déggin wu leen waay mën a indil déggin wu ñaaw la waaye lii mooy déggin wu rafet weneen déggin wu leen waaye mën a indil ak fu mu ko mën a déggin wu ñaaw waaye déggin wu rafet mooy lii suñu borom del wax ci alxuraan ne wa atiiwu llaaha wa atiiwu rasuula fa in tawallaytum fa innama ala rasulina al balaaxul mubiin topp leen ni leen yàlla ak yonent sant orientation yi ñu leen jox mu ni ku ci sàggan wala mu weex bopp wala mu topp tëre di jamono ba wan gannaaw ndigalal yàlla ak yonentam ba tee koo topp ay ndigali kilifaam mu ne am ni ñoom seen jaan wàcc na li leen waroon def nañ ko joxe sama mission rek laa leen santoon def nañ ko bu dee kilifa gi joxe na mission bi sant na la bañ nga bu dee yonent bi la bu dee xalifa bi la bu dee bu dee bu dee mu dellu xam ni ma allah rasuli ilal balaaxu ma allah kilifa dara waru wax li mu war a wax maanaam rasul ilal balaax kilifa dara waru ko lu wax li mu war a wax borom xam-xam bi dara waru ko wax li mu war a wax chef de quartier bi dara waru ko lu li mu war a jottali xalifa général bi dara waru ko wax li mu war a wax waaye li ci suñu borom teg wallaahu yaxlamu maa tubduuna wa maa taktumuun man yàlla maa ngi jàpp maa ngi jàkkaarloo. ñi nga xam ni buñ déggee ndigal jëfe ko ci lu nëbbu ak ci lu feeñ mu ne waaye ñi nga xam ne buñ jotee ndigal kiituwaale ko wane ni ñoom dégg nañ ndigal ñi ngi jëfe ndigal waaye ca safaan ba ca suuf ña ngay def ab safaan bu seen xalifa joxee ndigal ñu ne ah kay naam sëñ bi lim wax waaye nag ña nga yoroon ca suuf suñ borom ne xam ne naa gaa yi kenn ci ñoom ump ma man yutti ar rasul faqad ata allah ku topp sa kilifa yaa ngi mel ni ku topp suñu borom loolu la alquran wax man yutti ar rasul faqad ata allah ndax buñ nee ar rasul ñan ñoo fi doon yonent yi alayhimu salaam ñan ñoo wuutu yàlla ak yonentam ci jaan yi kenn ku nekk sa kilifa moo wuutu yàlla ak yonentam ci yow kenn ku nekk sa kilifa moo wuutu yàlla ak yonentam ci yow ñu yegg ci jamono ba benn ilhaadiyuuna mel na mbooloom terroriste ñoo xam ne ñoo accaparé réseaux sociaux yi waxtu woo waxee lu contraire ak seenu gisiinu li ñuy tuddee xorriyatu taxbiir mayetuñ ko kenn kenn amatul droit am xurriyatu taxbiir mooy wax li nga xalaat ak li nga gëm ak li nga jàngi woon déedéet kun yi aw tiddu da ngay ànd ak man mbaa sama sama noon nga ma sacrifié la mu am ay terroristes yoo xam ni dañoo nekk ci réseaux sociaux yi di terroriser nit ñi ba dootuñu wax seen xalaat dootuñu wax liñ gëm danañ xool sa pensée buñ gisu dara luñ la mën ay jël ay sos teg ci sa kaw famille danañ ko wax ci kanam suñ borom nee na wa man yuti allaha wa rasula أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. gaa ñi nga xam ni topp nañ yàlla akub yonantam alayhi salaatu wa salaam suñu borom ne ne yooyu gars yi ëllëg lu ma leen di añale ñu nangoo topp ndigalal yàlla akub yonantam alayhi salaam xam nga lu ma leen di añale mooy dama leen di fang boole leen ci teraanga yi ñi nga xam ni ñooy yonant yi alayhimu salaam mooy siddiquuna yi ñu sincère ña ña nga xam ne lu ñuy wax yàllaa tax duñ ci fay duñ ci leble wa suhadaa ñi jël seen deret jox ko yàlla wa saalihiina jëfkati yu baax ya suñu borom nee na ñii laay boole ëllëg fang leen dugal leen àddina suñu borom ni waaw suna ulaayika rafiqa way ndaw àndandoo yu baax mu ni mosumaa gis àndandoo yu gën baax yi àndandoo àndandoo yoo xam ni ay yonant lañu ay siddiquuna lañu ay suhadaa lañu ay saalihuuna lañu suñu borom boole leen fan nga tëmbal leen ci xéwalu barke jëme leen àjjana suñu borom ni gisuma àndandoo yi gën a rafet yi àndandoo waaye la ci suñu borom teg nag mooy saalika fadlun saalika fadlu min allahi wa kafa billahi alima suñu borom ni loolu du neex am ko de ñeme dëgg di ko wax ngir yàlla ba ëllëg nga mën a ànd ak yonent fu ñu dekkee nga dekkee fa ah loolu moom saalika fadlun min allahi ndimbalul yàlla lay doon rek terroriste yi ma wax ci internet bi terroriste nañu borom xam-xam yépp ba kenn ñi ñu tudd wax dëgg te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na asaakitu an al xaq saytaana axras sallallahu alayhi wa sallam nee na ku gis dëgg noppi ca saytaana su muuma nga yal nañu yàlla musal ci doon saytaana su muuma ku gis dëgg noppi ca saytaana su muuma nga sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax jëlee nañ ci sayyidina abi hurayra radiallahu taala anhu mu ni sallallahu alayhi wa sallam nee na man ataani faqad ata allah wa man ata ani faqad ata ani wa man asaani faqad asa allah wa man asa ani faqad asaani aw kama xaala alayhi salaatu wasalaam alayhi salaatu wasalaam nee na ku ma topp yàlla nga topp ku ma mooy yàlla nga mooy ku ma topp mel nga ni ko topp sa kilifa waaye ku ma moy mel nga ni ko moy sa kilifa ku moy sa kilifa mel nga ni man nga moy loolu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax génération bi toll ci buntu jamono dajeeg jamono bu tëx te lëndëm pendant vingt ans maa ngi waxtaane internet akum njabootam pendant vingt ans ci gannaaw boobu yi xew yëpp xewagul pendant vingt ans maa ngi wax internet buy ñëw ak i doomam pendant vingt ans del leen ci conférence yu yàgg yi kon li may wax du lu ma làmbut waxkat ba nee ku yàlla wax loo nga wax boo demee ci fuqaaw yi bi ñuy firi xadiisu yonent bi sallallahu alayhi ñoom dañ ni ñii nga xam ne ñoom la yonent jublu ci ñooñu ci kilifa yooyu mooy ulul fiq fi diin borom xam-xami diine ya boroom xam-xami fiq ya ñooñu la yonent jublu ci amir boobule mooy kilifa boobu nga xam ne dañ ko war a topp soo ko moyee mel nga ni ko mooy yonent bi sallallahu alayhi wa ñenn ñi ni déedéet al fuqaa wa salaam waaye tout court daal mooy mooy sa ndigalal kilifa yonent nee na képp ku mooy sa ndigalal kilifa mel nga ni mën nga mooy alayhi salaatu wasalaam ah yonent bi sallallahu wa sallam ko ko mooy ëllëg yow man xiyaam gisuma la mbaaw de suñu kilifa yi ñu war leen a topp topp yàlla loo ne ak mooy yàlla nekku daa am benn waykatu arab bu waxoon ne innal muhibba li man yuhibbu mutiye bu dee ñun fii koo wax mun la bëgg naa sëñ Tuubaa gëm naa sëñ Tuubaa mu ni nag nit soo ko bëggee te gëm ko da topp ay ndigalam di bàyyi ay tereem alquran ni qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhbibkumu llah wa yaghfir lakum zunubakum wallahu ghafurun rahim bu fekkee ni bëgg bi ngeen wax bëgg Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dëgg la ci yéen topp leen ndigalal yonent sallallahu alayhi wa sallam ku ko topp rek man yàlla mu bëgg la du ma ci yem dama lay faral say bàkkaar alayhi salaatu wasalaam dafa mas a toog ak saxaabatul kiraam ba yàgg mu ne leen kullu ummatin yadxuluna aljanna ila man aba xaaloo ya rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa man ya aba fa xaala alayhi salaatu wa salaam man ataanii daxala aljanna wa man asaanii faqad aba sallallahu alayhi mu ne sama xel yi ñëppay dem àjjana kenn du des mu ne ah, ah ah xanaa ba mu des ko bañ ko lànk ñu ne ah yow ki yàlla yónni àjjanaan ni mu neexee kuñ naan kaay dem kaay dem ci nga lànk mu ni ku nangoo topp sama ndigal yaay dina la dem àjjana ku lànk sama ndigal kookaa lànk bañu dem àjjana saxara la jëm yonent boobu alayhi salaatu moo nu jox ndigalal ñu topp ndigali suñu kilifa ak lu ndigal la wex wex wex bu waxoon ba mel ni kaanix Saddam Hussein wala mu wax ba mel ni Dakar wala mu wax ba mel ni sallallahu alayhi wa sallam nee na topp leen Abdullah ibn Omar nee na sallallahu alayhi wa sallam dafa toog ba yàgg xadisul marfuwa mu ni sallallahu alayhi wa sallam dafa toog ba yàgg mu ni alal mar'i muslim sam'a wa taa'a fi ma ahaba wa kuri'a ila an yu'mara bi ma'siyati fa in amara fi bi ma'siyati fala sam'a wala taa'a kama xaala alayhi salaatu nee na sallallahu alayhi wa sallam war na ci jullit bu yàlla mu topp ndigalal kilifaam sam awa taa samihna wa dégg naa li nga wax fas naa ko yéenee def mu ni moo xam li mu digal danga ko bëgg ba mu gënal la loo man a am wala li mu digal moom nga gën a bañ ci kaw suuf mu ne bu mu ci ñaar yi rek jëf leen moo xam liñ la digal neex na la moo xam naqari na la waaye na nga jëfe ndigal li mu ne xanaa lu dul ne dalaa digal ak mooy yàlla kilifa gu mat kilifa du digle mooy yàlla moom moo tax mu ne xanaa lu loolu rek mu digal la ak mooy yàlla boo demee ci hadiisu Abi Hurayra radiyallaahu taala mu ne attaatul mu ne attaatul imaam xaqun alal mar'il muslim maa lam ya'mur bi ma'siyatillah sidina abi hurayra nee na sallallahu alayhi wa sallam daf ni taatul imaam xaqun topp ndigalal kilifa xaq la ju yàlla dal ci saw loos nga war koo jëfe taatul imaam xaqun àqam la moo ko moom jox ko ko bu la digalee da war a def bu la teree da war a ba comme mooy sa kilifa. ñu toll si jamono boo xam ne ndaw mi bari dañoo rocc ku ci buumu kilifteef mu teg ca ni li feeg digalu mooy sa borom. Cheikh Amadou Bamba nee na wastamil lazi alayhi dallaka mubadiran walaw abattu nafsaka sëñ Tuubaa nee na kilifa gu mat kilifa bu la digalee na nga topp ndigalam doonte neexu la doonte bëggoo lim la digal mu dellu ci addis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax sax lim la digal bëggoo ko walaw abat ko nax sax doonte neexu la mu ni pratiquer jëfeel bu ngeen jàngee mu lay nu sujjuur sëñ Tuubaa na juróom-ñeent ñi nga xam ni du ñu dem ajjana du ñu dem safara laxrax la lañu jëm dañ caa boole kuy moy ndigalal kilifaam rawatina ñaari waajuram moo tax mu ne man xaafal ilaa wa walam yakun li walidayhi muhsina waa joo xam ne jaamukatu yàlla la day julli ba julli mel ni julli kaata dana woor ba mel ni cunkóoru fas waaye rafetal jëmee ci ñaari waajuram nangoo topp seen ndigal araam nee na jaamu yàlla day fekk safara doo dem safara de waaye doo dem àjjana de ndax mooy gi nga mooy ndigalal sa kilifa foo jëm laxraaf suñ tubaab moo ko wax ci mu la yén wa xadaa rabbuka alaa ilaa iyaahu wa bil waalidayni ihsaana lu alquran suñ borom nee na bu ngeen ma joxee sama xaq lu ngeen defati lu topp ndigalal seen kilifa yi aw bëgguma ko ngeen defati lu rek man yàlla aw ma ca soxla bëgguma ñu àgg ci jamono foo xam ne dañoo dégg ay gaay ñu ni bu leen déglu ndigalal kilifa yi buñ ne génn leen toj génn leen toj bu leen déglu ndey bu leen déglu bàyyi buñ ne génn leen taal génn leen taal bu leen déglu ndey bu leen déglu bàyyi waaye ñooñu seen wax loolu fu ñu ko bind moom la ñu la déglul ndey déglul bàyyi waay jóge fële ñu la bul déglu ndey bul déglu bàyyi man sama fuu ci politique politique gu ma politique lu wu ma mosumaa wooteel jàmm bu yàlla bind ci kaw suuf xaw ma sax kuy politique waaye dëggub yàlla gi danaa ko wax ngir yàlla fi sabilillahi taala danaa ko wax ngir yàlla fi sabilillahi taala sama fuu ci politique yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ibnu hadis boo xam moo ko nettali mu ne alayhi salaatu wasalaam nee na man raa min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir alayhi Ibn Abbas nee na sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xam ne dangaa am kilifa mooy dox doxin wu la neexut mu ne ah mu ne bu mu yàgg ba nga critiqué ko falyasbir alayhi bay bu muñ rek te xam ne nattu yàlla la. Ibn Abbas moo ko nettali de jële ko ci yonent sallallahu alayhi wa sallam donte sa kilifa gi ni muy doxee neexu la yaa moom bokku leen xalaat. waaye li fii mu ngi ci sa kanam doon sa kilifa mu naa mu ne bay bu rek fa les biir àll yi wax naa ko ci xutba yi ba tàyyi kilifa ñaar la kilifa gaynde ak kilifa mbëtt kilifa mbëtt bu la ko yàlla nattoo bay bu nga muñ mooy li addis bi wax kilifa mbëtt mooy koo xam ne boo ko jiitoo mu ne yaa ngi lekk sama gunóo yi nga toll gannaawam mu ne yaa ngi joggi sama biyam nga toll moom mu ne da maa diir mbagg léegi fooy muccee muñ rek ndax mënoo doon mënoo muñ rek dafa sës kilifa gaynde mooy kan mooy kilifa gu mel ni suñ kilifa gii di si Ahmadou Bamba radiyallahu taala nga xam ni moom lu ngay bëgg fàdd mu fàdd ko loo fàdd mu bàyyee la lu mu fàdd jox la mooy sëñ Tuubaa kooku mooy kilifa gaynde kilifa gu mel noonu di ko am di ko foyee wala ay nit di la ko caaxaaneel ba nga nar ko foyee kilifa gaynde day def loo fàdd mu bàyyee lu mu fàdd jox la lu lay bëgg a fàdd mu fàdd ko mooy suñu waa ji Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu taala kooku lañ ñu bëgg a sobantal kooku lañ ñu bëgg foyeel ñi ko fi représenté mooy ñan mooy ay xalifaam damay dégg ay baat yu ma sobe parce que da ngay dégg ñu naan bu fekkente ni nangam ak nangam xam naa ne sëñ bi dañ ko manipuler bu ñu demee ba yaakaar ne xalifab sëñ Touba dañ koy manipuler ba jëratul ñu di ko topp xalifa sëñ Tuubaa buñ demee bañ jort ni buñ mën a mën a pilier la baye boo jëratul di ko topp parce que xalifa sëñ Tuubaa man li ma gëm orientation ci sëñ Tuubaa la koy jëlee direct Cheikh Mouhamadou Cheikh Ahmadou euh, Cheikh Abdoul Ahad taala anhu lu mu waxoon nee na bi ma nekkagul xalifa dugg naa xalwa duggulu naa xalwa ngir bëgg a gis Cheikh Ahmadou Bamba xayaa nan munta nekk mu ne waaye keroog bu ñu denc jee Cheikh Modou Fadal Mbacke bi nga dellu si man ngi ko fekk mu toog ma xaar koo koy ëmbal kooku ab xalifaam nekk fi ñu naan dañ koy manipuler kon bàyyi boo ñu ci beneen sëriñ bu fekkee ne sëñ Touba ku fi nekk du la orienté kon jërëtu ko ñu topp ay dof yoo kenn xamul fu ñu jógee bëgg noo sabantalal suñu sëriñ si te ñoom seen ami liñ topp dañ leen a gëm luñ leen digal lañu def luñ leen tere la bàyyi. ni ñuy joxe addiya ñoom noonu la ñuy joxe participation ba noppi bëgg ñoo sabantalal suñu addiya ji ñu xëy rek dégg ay termes yu kenn xamul lan la kalimatu daawa maa maanaa kalimatu daawa ñu ni mooy jële ab jaam ci muy jaamu moroom nitam yóbbu ko mu jaamu yàlla laa hawla wala Sénégal xam ngeen fi muy jaamu nit fii maa ngi leen koy laaj wax leen seen aqullahi taala ndax kenn ci yéen ñii mbooloo mii gis na koy jaamu nit moroomum nitam fii ci kaw suuf ku ko fi gis fii Sénégal wax leen te te yàlla tax ñoom nan lañ déggee jaamu nit kuy jaamu nit nan lañ ko déggee nan lañ ko firee mooy nit koo xam ne daa ñëw may la sañ-sañ ci boppam ni la maa moom saa bopp nga ni waaw mu ne may naa la sañ-sañ ci sama bopp aslamtu nafsi ilayka loo ma digal danaa ko def loo ma tere danaa ko bàyyi gis ni ki tey may naa la sañ-sañ sama bopp sama ñaq lu may ñaq te yàlla tax lu ma ca am danaa la ko jox addiya may naa la sañ-sañ sama bopp foo woote liggéey ma wuyu si la lii da lañ tuddee jaamu nit kuy jaamu nit lii lii lañ fi ne nit kuy jaamu nit bi suñ sëriñ ba nee na Bamba radiyallahu taala anhu wa kun ladda sayxika mayiti wuddi a bayna yadday xaasinihi tantafiha nee na bu fekkee ni may nga sa bopp sëriñ bi may nga ko ci sañ-sañ lu mu la digal nga def ba mel ni am néew bu toog ci kanamu ki koy sang mu ne amul ah, yow di nga jëriñu de ku mu guddul waaye mun di nga jëriñu léegi loolu la ñu gaa yi firile kalimatu daawa mooy nit kiy jaamu nit dégg na ay borom yi xam-xam yu waaf ci borom lal naan baat bi bon wala problème parce que baat bi yàgg mi ngi ci alxuraan mi ngi ci alxuraan ne gàññi moom baat bi waaye lu fi indi baatu daawa naar ba day jaay di jaay ba waxtu ba di a ni ko naar ci sa bitig bi mu ne lu fi indi baat bi bu fi sàcc amul baat bi lu ko fi indi léegi kon lu ko fi indi bu fekkee di di procès léegi daawa bi lu ko fi indi kon laaj naa leen ginnaaw daxwa bi jubluwuñ ci lool jubluwuñ ci jubluwuñ ci teqale sëriñ si ak seeni taalibe moo tax sañu fóole yi léegi dañ ñu wax baat bi lu mu ci lu mu ci jublu kon sallallahu alayhi wa sax mel na war a mel mu ni muñal muñal muy ndax waxtu woo teqalikoog sa kilifa googu lu toll ni sebre xam ngeen sebre de mooy diggante ñaari baaram yi nee na diggante boobu rek boo ci teqaloog sa kilifa nga jooyoo ceeg moom yàlla dogal nga dee ci yonent nee na yaa ngi dee ci ak jaahiliya yow sallallahu alayhi wa sallam hadis bi Abi Hurayra ko solo ci Abbas moo ko solo radiyallahu taala anhu moo ko solo bu ngeen dee politique dem leen ngeen politique yi waaye bu leen foyee suñu ndigalal kilifa yi bu leen foyee suñu kilifa yi terewul kenn ku politique waaye nag nañ ñu fi baal suñu kilifa yi man sama fuu ci politique wax naa ko miraaraan muy man rek kenn du fan man gëwuma lay am na addis boo xam ne ku ñu wax xiyaat ibnu xanima moo ko nett bi mu ne sallallahu la wa sallam nee na man araada an yansa alasi sultaan bi amri fala yubda lahu alaaniya hiya nee na sallallahu alayhi wa sallam waxtu yàlla dogalee nga am njiit loo xam ni dafa juum wala nga yaakaar ni mu defee ni mu ne amu ni boo demee ba di ko laajee biir sax bu ko ko wax ci biir mbooloo ñu nooy def mu ne jàppal ci loxoom nga wéet moom ci am néeg wax ko ko ñu ni waaw ñu ni boo ko ko waxee bu fekkee ni jëfe na fay la alhamdu bu jëfewul doy woo toog mun ñun ci réseaux sociaux yi lañuy ñuy toog di di di ni nii dañuy dañuy dañuy dañuy laaye biir suñu kilifa yi ci réseaux na dañuy laaye biir suñu kilifa yi ci réseaux sociaux yi d'accord ak diinu an nasiha waaye yonent nee na sallallahu alayhi wa sallam ci hadis bi nga xam ne xii at moo ko nettali nee na wéetal ak moom boo amee loo koy wax wéetal ak moom ñu xañ ñu wala boog ñu bëgg noo xañ xurriyatu taxdiir wax sa xalaat ñu kenn sañu ko fi boo ko fi def rek am nañ mbooloo moo xam ne ñooy dal ci sa kaw wax la loo xam ne weñ wuccan dal dee ay loolu kum tax a noppi yonent bi sa alayhi wa sallam dañ koo saaga ba mu simboo ay saagaam yaa gën yonent bi sëñ Touba ngi ni bërki démb lañ ko saaga ba mu jooy xëpp yaa gën sëñ Touba waaw Cheikh Mounta Cheikh Mountakha mi ko fi nekkal nag yaa ko gën man ni kenn kenn ku ngaa am xalaatu sax xëy na mooy ndigal waaye ba mu des ku jamono teg sëñ Mountakha man kooku yaakaar naa ni daal war naa rusa mooy ndigal ci kanamu Cheikh Mountakha ndax Cheikh Mountakha mu topp ay baayam. gën jaa day toppin bañ gërëm ko mu boole gërëmal yàlla ay bàyyam jóge fi mu topp ay rakkam bañ gërëm ko yàlla gërëm ko kooku toog tey bu ne benn ñu fukk ak ñaar li waral suñu diggal moom bu ne daa xool ko ñu ne ko cur bu ne daa ñuul ñu ne ko kukk bu ne daa weex ñu ne ko tal mais contraire bi lañ def te ñi ko def ñu ngi ci biir dëkk bi ñu ngi ci biir dëkk bi sallallahu alayhi wa sallam ci hadis boo xam ni Abi Bakar moo ko nekk li mu ni sallallahu alayhi wa sallam nee na as sultaan sillullahi fil ard fa man akramahu akrama akramahu llah wa man ahaanahu ahaanahu llah sallallahu alayhi wa sallam def ni ci hadis boo xam ni Abi Bakar moo ko nekk li mu ni sallallahu alayhi wa sallam nee na kilifa taxawaayu yàlla la taxaw ci kaw suuf bu yàlla amoon takk deer kilifa mooy takk deeru yàlla ci kaw suuf mu ni ku ko warmaal yàlla warmaal la ku ko doyee dal yàlla doyee dal la sallallahu alayhi moo ko wax kilifa takk deeru yàlla la ci kaw suuf bu yàlla am takk deer ku ko warmaal yàlla warmaal la waaye ku ko doyee dal yàlla doyee la xam ni ñoom la ñuy tuddee asalafiyiin salafiya tubaab di wax benn kuréel la ci kuréeli lislaam yi dañoo am li ñuy tuddee idéologie boo xam ni moom la ñuy véhiculer ci alamul islaamiya ñu ko créé nga départ ci réewi naar yi réewi naar yi lu ñu amoon dictature rey nañ ay borom ñu xam-xam yu bari ñoo nag di révélé di révélé di révélé di révélé maanaam di révélé wu di révélé wu di révélé wu ba xëy lay xew-xew fa faw daal anarchie boo xam ni kenn xamul kañ la jëm loolu di roga laat di roga laat ba agsi fii mos na maa toog taal internet gis mbokk mu nekk bitim réew benn mu ngi bokk ci asartise yi def daxwa fii ci Sénégal ci benn télévision ma dégg mu wax ni réew moo dégg mu développé réew moo nee derete ko suuxat réew ma doog a développé loolu xalaatu salafiste la comme man damay def émission ci rajo bu nekk bitim réew ma tontuwaat ko ca foofa ni ko ba mu des Sénégal sepp ci Sénégal Sénégal moom li ko li nga xam ne moo tax mu développé wu mooy révolution pacifique kan moo ko def Ahmadou Bamba la tudd fii la dëkk révolution pacifique moo avancé Sénégal révolution pacifique moo tax Sénégal egsi fii mu agsi mais pas révolution boo xam ne day tuur deret sëñ Tuubaa bi mu ñëwee gis ni tuur deret mënta indi solution la créer révolution pacifique parce que xam na ni tuur deret mënta saafara dara depuis yonent yi jusqu'à présent saafarawul dara mu indi révolution pacifique ca la yam déedéet bi mu demee ba réussir ko xam nga lu mu wax it an rujuhi ilaa xawmi saxaadatanaa fal takfinaa jeex na yow suñu borom dama sacrifier sama bopp pour pour sama peuple mucc pour sama peuple texe waaye bu ci yem ak man ci loolu xam nga lu ma bëgg dama bëgg bu ma delloo muy seen réussir na nekk seen bonheur ital rujuh ilaa qawmi shahaadatuna na nekk seen bonheur bu ma delloo sama delloo na nekk bonheuru sama peuple man sëñ Tuubaa te bi mu ne bëri dañ ko ne kaay noo ànd dee mu ni déedéet toog leen ma sacrifier sama bopp yéen ngeen njëriñu leader noonu lay mel leader day sacrifier boppam pour peuple am jëriñu waaye leader du sacrifier peuple am pour jëriñu ku weddi demal fii nga laaj ko Nelson Mandela Afrique du Sud dafa sacrifier boppam pour peuple am jëriñu pendant vingt ans et quelques de pétition pour peuple am jëriñu rek te yonent bi loolu la wax ci hadiis bi de sallallahu alayhi wa sallam nee na ah ahabbuhum ilallahi anfa'uhum li iyaalihi ki gënal yàlla ci nit ñi mooy kiy sacrifier boppam pour nit ñi jëriñoo ko maanaam ñii ñii doon doon bu ni kon li ko mën a solutionné solutionné mooy am jidd xiyaat jidd bu lay orienté rek bu lay teg ci ndigal rek nga bañ a demee sa passion bopp nga bañ a demee sa passion bopp. Cheikh Mountakha moo xam ni jamonoy mag ñi ba tey mi ngi fi expérience bu ne waaye rawatina sax li ma ci gën li ma ci gën a marqué mooy moom daa jàng ba jàng fu dara éppul xam nga doob jooy moom daa jàng ba téere yi jeex mu làq téere yi fële di wut sëñ Tuubaa ba def ko ci poosam yëmut ci loolu mu topp ay baayam ba def leen ci poosam waaye kii danañ ko jënd keneen artiste yi ma leen wax gis nga biñ leen laajee kan mooy salafiste salafu man huwa ñum doon xam nga dañ tontu tontu par parlo taxasub xam nga Sénégal loolu ko yàq par parlo taxasub ñoom loolu lañ tontu dañ ni salafiste daal mooy koo xam ni daa teg tànkam ci alal kitaab wa sunna ñu leen man hu ñu ne al mutaqaddimoona gaa ñi jëkk ñaar ñu ne ah ñu mucc yi nag ñu ni wal mutaaxirina allasina saara ala tariqi saxaaba hum min la wa salaf mu ne ñu mujj yi nag am na ay benn benn mooy ñi nga xam ne ñoo teg seen tànk fa ba saxaaba yi tegoon ñu ne waaw ba léegi nag ñu commencé lim seeni sëriñ ñoom nee nañ seeni sëriñ ci ñooñu lañ bokk ci salafu saaxi lañ bokk tudd nañ ci ku ñuy wax ahmad hanbali imaamu shafii abu hanifa waa ana malik malik mi borom ngir mi fii seen sénégal ana mu tudd ko fenn ana imaamu malik koo xam ni bu masaan di waaraate maa muy jàngale day yëkkati loxoom ba teg ca rawdu rasulillahi naan borom rawdu bi nee na kasaa wa kasaa kooku lañ teg fee nee nañ moom bokkul ci salafu saalih la hawla wala quwwata